irwiyu ci mébétu njàng moo xam ni dañ koo xalaat di njàng moo xam ni dafa war a boole ab yar ci wàllub diine te war a wuyoo ab turam sëriñ Moustapha Bassirou dafa taxawaloon benn daara di ab internat fii ci Poroxaan daara jooju sax mu ngi ubbi woon ay buntam ci weeru mai 2005 tey jii juróomi téeméeri ndaw yi jigéen ñu ngi fay jàngee ñoom ñëpp dañoo dëkk ci daara ji nañ dellusiwaat ci yille yi nga xam ni moom moo sababoon bañ taxawaloon joojule daara te mu tudd daara soxna jaaratullaa ak ki nga xam ni moom mooy jëwriñ ji yor wàllum njàng mi Moustapha defoon na ne xëy na du mën a feesal li mu bëgg jël muy 450 waaye ñaari fan lañ inscrire daanaka bi ñu nattee la ñuy lu ñu jot a wañ wàññi ko amoon nañ juróom ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar maanaam 472 ma am jaar la ñu daal di am euh, loolu di di law liste d'attente daal di fi am liste d'attente bu mag a mag boo xam ne ci jamono yooyu bindoon nañ ba bind juróomi téeméeri xale yoo xam ne ñu ngi xaar. di xaar euh, ba tax na dañoo delluwaat ci at yi nga xam ne dëgg-dëgg mooy baax ci kuy dal nga nga dal ci alxuraan euh, mooy juróom benn at ak juróom ñaari at. Euh, boo fi duggee tamit am na diir boo fi am boo xam ne dina toll ci juróom ñetti at nga soog fee jóge fekk jàngal nañu alxuraan ak yeneen yi nga xam ne xëy na di ma ko laaj moo ciy topp après alxuraan ji. ngir sax ci xàll wi nga xam ni moo ko taxoon jog njàng mii dañ koy xalaatee noo xam ni dafay wuyu ci li nga xam ni farata lañ ko jàppee fii. moom mu Moustapha da ko tegoon ci noo xam ne bàyyi na xel ne ay jigéen la yor waxoon naa leen dafa mujjoon sax ne na mag ñëpp mag ñi ñëw ci bi diir boobu mag ñëwee rek borom fukki at ak ñeenti juróom ci la ne ah kon kat li ma yéene woon ci ñu jàngi métier kat dañu waroon koo def ci kanam nañ ko daal di tàmbali daal di ubbi fi benn euh, salle bu mag. ne mooy centre bi def ci ay machine recruter ñaari euh, monitrices yoo xam ne ci dëkk bi leen dëkk ci kër gi teg leen fa ne xale yi alxames sa àjjuma ne leen mi ci ndax màgg seen màgg bu jigéen xam nga dafa gaaw ko dem ba am fukki at ñeent faaw da ngaa war ñu gaaw ci li ñuy def ci yow bala ngaa dem kër. ñu tabax ko ci ñeenti hectare centre de formation Jaaratullah bi nekk ci Poroxaan dafay boole njàngaleem ci wàllu xam-xam ak tàggat gi ñuy tàggat ñi ci mën-mënu àdduna. fàttewuñ itamit njàngale mi nga xam ni xam-xamu diine moo ko tax a jóg ba atum ren gi ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari ndaw ñoo fi mokkale alxuraan bindee ko fi jàngalekat yi ñu ngi toll ci ñeent fukk ak benn professeur ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ñoom di ay jigéen juróom-ñett ñooy surveillant ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum administration bi loolu yëpp nag li koy taxawal ci wàllu koppar fondation Maam Jaara Buso bi moo koy taxaw